bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sawtul islam barnaamijun diiniyun tuqaddimuhu al aimatu wal ulama bi Sénégal wa fi lmicrophone al imam Ousmane Sarr wa fi tadris al imam alhaji Mbaye Ndiaye wal imam alhaji Harouna Ka al ixwatu wal axawatu almushahidun assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu imam assalaamu aleykum wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh imaam asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi jàkkaloo ñun gannaaw bi ñu leen nuyoo ndokkeel leen ñaana leen jàmm di di saata yéen seen waxtaan wi xam ne moo di kaddu lislaam di ñaan subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moom jàmm te ku jàmmal nga am jàmm yal nañu yàlla boole jàmmal di ñaanal njiitu réew mi ak ñi koy jàppale yëpp waaye njiitu kër gi di RTS ak ñi koy jàppale yëpp ak Ousmane mi yor programme mu diine ak ñi koy jàppale yépp di ñaan mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ñun ci kàddu l'islam ma ne di ñaanal ki nga xam ne mooy docteur Alaaji Thierno Ka ak yi Mor Jaxate ak ki nga xam ne mooy Mbay di leen jàmm di ñaan subhaanahu mi nga xam ne moomam jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yan yàlla boole jàmmal yëpp di ñaan tamit Sénégal jàmm ji gën a yaatu di ànd ak xéewal goo xam ne xéewal gu rëy rëy la damay faral di ñaan li léegi di wax ne xéewal gu yàlla wàccee ci kaw suuf ak fu mu ko mën a wàccee rek yan nag raamal bu mag si Sénégal te bu ñëwee yéen ñu bokk ci ñu koy xéewoo kon nag imaam bisimilah ci li nga indil mbokk yi jàkkaarloog ñun. alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa Baye Ousmane ñu ngi lay nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la ndokkeel bu baax di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér Baye Ousmane di siyaara itam nag di nuyu sunu mbokk imam Haruna Ka di ko tatagal bu baax di ko wàcce wàcc waayam waaye di nuyu nag Aline Omar Sarr di imam docteur ca caareen ñu ngi koy nuyu moom itam di nuyu waa caareen yépp di leen ndokkeel ci weeru màgg wi nga xam ne moom la ñu jógee waaye Ousmane di nuyu imaam yi nga xam ne yépp ñoo nekk ci Sénégal ci quatorze régions yi ak quarante six départements yépp kàddug lislaam mi ngi leen di nuyu ñu xam ne incha allahu ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér te xam ne fii ñu toog ñoom rek lañu fi toogal Baye Ousmane di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci Sénégal gépp muy ki jiite réew mi ak ki jiite RTS ak techniciens yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel Baye Ousmane di dellu si waat rek di sofe ci sunu waxtaan bi nga xam ne moom moo paase ci jaamu yàlla ak topp sunu borom bi subhanahu wa taala Baye Ousmane ñu xam ne koor jeex na waaye jaamu yàlla jeexut xam nga l'islam dafa am li ñuy wax al mawazim ay période période bu nekk dafa am loo xam ne moom moo ci xew Baye Ousmane ñu jóge ci koor war a jublu ci nag ci li nga xam ne mooy aj waaye jaamu yàlla noon rek la diggante koor ak aj ay weer dox na fi parce que bu ñu xoolee saxaru shawal mi ngi fi bu ñu xoolee saxaru sili qaada mi ngi fi ñu door a dugg nag ci sili hijja muy weer wi nga xam ne mooy weeru aj bala ñu di ko wax weeru tabaski waaye balaa boobu rek jullit bi dafa war a delloo siwaat boppam delloo siwaat ruuxam delloo ko borom bi tabaraka wa taala ci lan ci ragal yàlla comme ni nga xam ne noonu la ko Haaruna ka waxe woon jullit bi warul boy boyal boppam di wax li ko neex di def lu ko neex yàlla def ko tënk bis bu nekk yàlla def ko tënk ci nii nga xam ne noonu la ko war a toppee ni ñu war a toppee yàlla nag yàlla rëdd na ko wàccee ko ci sallallahu alayhi wa sallam Baay Ousmane bu ñu xoolee alquran ni ko yàlla wàccee ci weeru koor ci guddig laylatul xadar wàcce ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril di ko jël di ko wàcce di ko wàcce ci moom di ko wàcce ci moom ba mu jeex ba ñu boolee alxuraan boobu alxuraan boobu ñu dara mën nañu ne mooy téere bi nga xam ne mooy carte d'identité doomu aadama ndax lépp loo xam ne nit ko war na koo dundee mu ngi ci biir alquran waaye alquran jooju itam dafa am lu ñëw firi ko muy sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw firi alquran ndax yonente bi dundam doxam waxam lépp alquran la aïcha biñ ko laajee yonente bi sallallahu alayhi wa lan la ñu wax dana yonente bi daal dundam lépp alquran la kon sunna bi mu fi wàcceel dafa ñëw lépp loo xam ne mënoo koo firi ci alquran boo ñëwee ci sunna di nga fekk ay hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko xataa ba ni nga xam ne noonu la ñu war a dëkkee yonente bi sallallahu wax nañu ko ba lorante gi nga xam ne dañu koy moytandiku loo yonente bi sallallahu alayhi wa nañu ko catégorie yi benn bu nekk jullit bi ak mbokkum jullitam dëkkandoo bi ak mbokkum dëkkandoom benn bu nekk yonente bi na xataa ba gan gi ngay am sax ni nga xam ne noonu nga ko war a terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko te bu ñu bëggee ëllëg ñu ànd ak yonent bi dañ koy bëgg bëgg yonent bi nag mooy topp sunnaam diglu waxam ay tegtalem waaye itam topp jëf jamu jaan jëfe ñu topp ko parce que loolu sunna la li yonent bi wax sunna la lim daan jëfe nga jëfe ko sunna la li nga jëf ci kanam te terewula ko sunna la ñett yooyu yëpp benn bu nekk boo ci topp rek sunna la li ci gën a bari nag bokk na ci mooy wax ji mu doon wax ndax ñi fekkee jamonoom bariwut waaye lim fi bàyyi ci wax nag nga xam ne téere yi gën a wér muy saxiixayn yi gën a wér muy albuxaari wa muslim andi nañu ko kenn ku nekk am nga loo ci andi ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ulama yépp d'accord nañu ne buxaari yi ak muslim lépp lu ñu andi lu wér la am na kutubul arbaa am na kutubu samaniya am na kutubu isna asra waaye kutubu isna ni daal muy aw isnayni bi nga xam ne buxaari ak muslim ñoo ko wax wax nañu ne ñooy téere yi gën a wér gannaaw alquran ñooñu nag andi nañ wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp moo tax yonente bi lan la wax foofu man kaana yumin ci hadisu abi hurayra radiallahu taala anhu man kaana yumin billahi wal yawmi al axir fal yaqul xayran aw li yasmut nee na ku gëm ne bis penc dana taxaw te bàyyi ba Ousmane bis penc dana taxaw ñun ñëpp danañu taxaw ñu xisaab ñu ñu dem ñëpp ña nga barsaq ña nga barsaq dañu xaar nun ñii danañu dem barsaq fekki leen dañu dem barsaq fekki leen ña barsaq ñëpp ña toog di xaar bis bu ñu walee bufta ba nag la ñëpp doori taxaw nag ñu door a na commencé xisaab jaam yi kenn ku nekk nag la nga nekkoon sa wàllu àddina ñu di gaaral ko ci sa kanam moo tax mu ne man kaana yumin billahi wal yawmil axir fol yaqul xayran aw li yasmut képp ku gëñ ku gëm yàlla gëm ne bis penc dana taxaw nangay ngay wax lu baax te noppi nangay wax lu baax te noppi bu ci teg leneen mu waxaat ci beneen hadis mu ne man kaana yumin billahi wal yawmil axir fal yukrim jaara ku gëm yàlla gëm ne bis penc dana taxaw na ngay teral sa dëkkandoo est-ce que loolu ñu ngi ci yooyu yëpp ay ndénkaane yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam kon bàyyi Ousmane diine l'islam daf noo tënk ci dara diine l'islam tënku ñu ñuy doxee suñu bëgg-bëgg waaye diine l'islam daf ñoo tënk ñu dox ni ko yàlla digale doomu aadama euh, doxe ni parce que ëllëg kat dinañ la gaaral imaam kat mi ngi koy wax ci émission bi passé kenn ku nekk am nga raqib ak atit kenn ku nekk mi ngi topp sa kaw di la xool li ngay dox li ngay wax fi nga jëm yëpp ñi ngi bind kenn ku ne yaa ngi bind ki ne ci ndeejoor boo waxee boo defee benn bu baax mu ne yàlla ne ko fulandil gaaw gaawal bindal ko fukk ki ne càmmooñ boo defee safaan ba yàlla di la xaarloo xaarloo ko ndax dana tuub wala tuub tuubul soo tuubul loolu dellu gannaaw yàlla ne bindal ko benn kon gis nga bénéfice bi doomu aadama am muy jullit bi bénéfice bi mu am kon loolu bu ñu ko amee waruñu koo sàggane suñu bopp ba àddina doxalinu àddina mbala tëralinu àddina mbala bëgg ak àddina ba tax ñu bàyyi loolu di lorante ci suñu biir loolu dafa amul benn njariñ te kenn ku ne dañ la gaaral sa téere kere yowmal xiyam kon bàyyi Ousmane lu jar bàyyi xel la mu dem nag ci deuxième thème bi ba ci jigéen ñi comportement bi ñuy yore bàyyi Ousmane tey docteur yi di ci wax ñëpp di ci wax muy laan soppi bi ñuy soppi seen yaram yi ak feebar yi bàyyi Ousmane semaine yi boo digloo docteur yi dafa dañoo méngaloog l'islam parce que l'islam dafa bañ loolu jigéen du soppi yaramam jigéen day bàyyi boppam ni ko yàlla bindee waaye bu ñu la waxee conséquence yi ci am ci àddina dangay nga yéemu ci yàlla xoola conséquence bi ci yàlla wax kii soppi boppam xoola conséquence bi ci am ci wàllu àddina ñu wax ne cancer yu baree baree bari yi am tey xeesal bi moo koy waral ñu jàpp saw yaram yàlla bind la ni mu ko bëggee yaram woowu mu la bindal mu war laa mën a fegal feebar wala seega segal ngelaw lu bon wala segal ndox moo xam ne bu laalee seeram maanaam mu metti ko mu der bii mu defal la ko mu ne la lii ci kaw nag da lay protéger nga ñëw xolli loolu ba mu set bàyyi ko mu xong coy ngelaw loolu bu dikkee dugg ci biir mu andil la cancer wala mu andil la feebar boo xam ne dootul wér xataa boo demee ci docteur bi sax pour mu pikiir la sax problème la fekk na yow yaa ngi ci sànjum yàlla ndax yaa ngi ci merum yàlla ndax yàlla dalaa bind nga soppi ni la yàlla binde nga ne yàlla ni ma binde neexu ma dama koy soppi def lu ma neex yaa ngi am daani yàlla ëllëg yaa ngi am merum yàlla ëllëg waaye yaa ngi yàq saw yaram ba sa bakkan xaj ci te Baye Ousmane lu garaaw la tey jigéen ñi di ko def ñiy def ay concurrence ci jaay ay saabu yoo xam ne boo ko laalee sa yaram rek mu xolli sa yaram bi yëpp li nga xam ne moo baaxan ci biir yaram bi yëpp mu rey ko nga xool ne deret ju doon daw ci biir yaram sax saabu boobu da koy rey ba mu def parce que lii rey der bu ñuul boobu le bu fekkee deret ci biir da koy rey yow sa xel nekkul ci yoolu la yaa ngi bëgg rek rafet pourtant sa jëkkër bi mu lay takk dalaa fekkoon nga ñuul bëggee woon na la noonu mais pour pourquoi tey nga bëgg na yow loolu da ngay xolli sa yaram feebar feebar daal la boo xam ne kenn mënutu koo faj waaye Ousmane muy jàngoro joo xam ne tey muy complexe boo xam ne boroom xam-xam yépp cee war a wax tey docteur yëpp dañu war a jóg ci loolu tey parce que bari na tey ci jigéen ñi ñuy feebar tey xeesal yooyu ñuy def di xool seen yaram yi ñoo leen ko indil yooyu yëpp nag ñii kilifa war nañoo jóg wax ci jàppale itam kër docteur waaye jàppale imaam yi nga xam ne dañuy wax it yàlla li yàlla wax jigéen ñi ñu bàyyi xeesal yi ñuy xeesal seen bopp di lor seen bopp bañ dugal seen bopp ci alkaange yàlla lu mu wax fegal leen seen bopp fegal seen ñoñ ci alkaange loolu la yàlla subhaanahu wa taala wax kon xeesal yooyu na ci kilifa yi wax boroom kër yi wax ci jigéen ñi itam delloo si waat seen xel ñu bàyyi loolu docteur yi wax parce que ñooñu ñooy boroom xam-xam ci côté boobu lay ñooñu ñoo ci jox boo gisee semaine yëpp ñu ngi ciy wax ne na ci kilifa yi wax xeesal bi li muy rey ci Sénégal di andi ay feebar yoo xam ne kenn mënu koo faj kenn xamul nu mu toll tey boole nag nga am nag sànjog yàlla tegaat ci merom suñu borom bi tabaraka wa taala ndax yàlla mi la bind ne la nii laa bëgg nga mel nga ne déedéet yàlla man bëgguma loolu man nii laa bëgg a mel waaye bu soon bàkkaar boobu kenn xamul nu mu toll kon jigéen ñi nañu delloo si waat seen xel xam ne yàlla mi ngi leen di suivre mi ngi leen di contrôler mi ngi xool li ñuy def ndax saf na ko wala déet tey ñëpp war a delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala jaamu ji yàlla bàyyi Usmaan xoola dee gi ni muy bette léegi rek nga nekk ci lu naqari yàlla ba dee fekk la ci foo jëm foo jëm yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu yàlla musal ci alkaange ñu dellu si ci dellu gannaaw te Baye Ousmane ñu bëggante bokk ndey bokk baay xam ne àddina dara newu fi yàlla rek moo fi nekk te lépp dafay jeex kenn ku nekk fàttaliku ngay mujj ëllëg yàlla fekk nag ñu nekk fàttaliku bu rafet comme ni ko borom xam-xam bi waxee yàlla fekk ëllëg ñu nekk fàttaliku bu rafet boo xam ne ku ñu fa ne ah Baye Ousmane Sarr day lii la nekkoon nii la doon def ci yàlla lii la doon defal ci yàlla mbala soxna si day da daan jaamu yàlla da daan muuru da daan def nii lu yàlla bañoon da ko doon bañ loolu daal mooy woy wu rafet waaye xolli saw yaram feebar bu du wér dal la nga dee dem fekk fa sànjum yàlla fekk fa merum yàlla fekk fa yàlla tëkku loolu yàlla ci yàlla musal kon nañ delloo si waat xel yi xam ne kat taar bi gën ci taar yi mooy taarub lislaam sax ci li yàlla santaane bàyyi ci yàlla tere Baay Ousmane ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Cité Ndey Mari di nuyu imaam yi nekk ci mbaaw yëpp ak pikin di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imam alaaji Mbay Njaay ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne tey moom nga indi gannaaw bi nga xamee ne jokkoo nga ak mbokk yi ci li nga xam ne moo di gëm yàlla ku gëm yàlla da ngay baaxeel ne da delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala ba gis nga kàddu googu moo tax ku fi jógee nga dégg doomu aadama yi gëm yàlla yëpp ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon xam nga ku gëm kàddu yooyu rek eh, dana am noo doxalee sa àddina ak noo doxalee diggante yi ak sa mbokk yi jullit yi nga dëkkal ci kaw suuf ak mbokk doom aadama yi comme yow dëkk ci kaw suuf danga nga daal di rafetal danga nga daal di sellal jàngale nga sànq boo xam ne Sayyiduna Aïcha ba ko laajee ba ko asaaba sol daje ne ko waaw yonent bi moom naan nga gisoon noonu la nu mu daan jikkoo dafa ne xuluquhu alquran kon jikkoom mooy alquran kon li nga wax ne jullit ñuy dellusiwaat ci alquran mooy lépp lu ñuy jëfandikoo lépp lu ñuy doxal ci alquran la nekk gisoo taar bi defarlu gi ak yëpp li nga wax soppi bind gi yàlla wax na ci bu yàgg ne bu leen soppi seen i bind yéen ñi soppi seen i bind maa ngi leen di xaar bis dana ñëw waaw te yàlla li ma waxoon ne loola du ca dañ dégg nga ba ma wax ne ñi wax ci yéeféer yi xam naa ne jullit buy mooy yàlla moom kenn wax ñemee wax ne ko yow ab nga waaye nag mooy moo baaxul waaye yéefar yi bañ leen waxee lii la ñu kii dafa ne fa ma xilil kaafiriina am xilhum ruwaydan yàggul yàlla ne àddina yàggul kon nag àddina yàggul waaye nañu lu baax li nga wax ci xeesal bi euh, déglu naa docteur yi ñu ciy wax digg naa liñ leen di wax yëpp te ñaan dimbal ndax borom kër yi tamit ak ñëpp daal ciy bokk kon li nga wax ne kilifa yi diine yu aada yëpp nañ ci bokk ndax mu nekk jàmmu àddina jàmmu àddina mi kër ku ko yàlla xa bootul jàmmu laaxir doo am ndax gis nga alxuraan dafa rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan kon addina mi nga njëkkam naan jàmm bu jàmmee addina amee rek jàmmi laaxira day dal dikk kon ñu fexe ba yaram yi ñu ñu ñu ñu koy aar bindu yàlla bii la yàlla bind aar ko jox lay kaaraanga aar ko waaye doo ko aar ba pare doo sol mbubb nag teg ci wala ba mbubb yi nga sol tudd mbubb ndax mbubb boo ko solee mu mandargaal sa yaram yépp amul lar dara lu nekk ci yow lu ñu doon nëbb te feeñul te mbubu mu seer ba dee bëri xaalis bala bala am lu ne danga ko ci gu ci alal joxe mbubu baaxul amul njëriñ jërëjëf imam kon oustaz imam Alaaji Arouna Ka bi nga dégloo imam ba yeggal ci li di ci gëm yàlla fonk gan yëpp it bis ñu béy ci kàddu yooyu la والصلاة والسلام على خير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد mbokk yi gannaaw gi ñu sant yàlla yoon sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu macha allah sunu kili bi alaji Ousmane Sarr di rafetlu itam taxawaayam ak waxtaanam ak maanaam giide bi ñu giide di itam di nuyu alaji Mbay Njaay di ko baalu àq di itam macha allah waxtaan bi mu waxtaan ñu ngi ko ci gërëm la ko waral liñ soxlaal tey la eh, jamono gi def ko laaj te fi mu nekk nii mu ngi mel na julli ñi dañoo mel na ñu eh, réer wala ñu gëlëm te julli nit na ba fekkee gëlëm na dangay ngay war a delluwaat ci fi nga joge ba booba moo lay dimbale waaye na boo continué nag da gën a réer eh, fi mu njëkkee wax ne rek maanaam Aïcha radiallahu anha jigéen la soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu amoon at yu néew yonent bi sallallahu alayhi wa tàkk ko bi mu koy bay itam mu nekk itam ci at yu néew wante nekk borom xam-xam e, yonent bi sallallahu alayhi moo ñu njëkk a wax mu ne xudu nisfa diinakum min haadihi l-humayra kii de jigéen la de te ay sahaaba yu góor ñu ko fa borom xam-xam lañu e, wante yonent bi moo leen wax ne jël leen seen xaaju diine ci ndaw su xees si kon nag kooku ba mu waxee dañ ko war a déglu te sahaaba yu bari jàngal na leen jël nañ ci moom kon mooy xadis bi mu nettali biñ ko laajee yow mi àndoon ak yonent bu nekk sa borom kër te yow jàngat rek nga nekkee woon ak moom lépp lu mu def rek da ko lu tax nga def ko ba mu waxee dara nga ne ko lu tax loolu dafa doon jànga lu caageen ko da bëggoon ëllëg mun a jàngalee kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana mu ne kaana xuluqul qur'ana biñ ko laajee lan moo nekkoon jikko yonent mu ne qur'an kon nag ku qur'an nekk jikkam kooku day baax kon nag ñun nag bu fekkee dégg nañu ni bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha nettali na mu ne alquran moo nekkoon jikkam kon boo boobaa ñun tee ñu jikkoo itam jikko alquran teel ñu roy ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mun laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana defal defal naa leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen royukaay te moom laa leen royloo te roy bi nga xamee ne moo gën ci képp ki ngeen mun a roy la waral koo mun roy rek mun nga fekke fa ëllëg maanaam mu ngi fu mu tarxis ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa maasum la lépp lu mu def rek yàlla moo ko wax ne defal lii lépp lu mu def yàlla def ci ànd kon nag ba fekkee ne jullit bi eh, ku góor ki ak ku jigéen ki nga ne jullit nga war ngaa roy ci yonent bi sallallahu alayhi yow jigéen bi tam nga war a góorgóor nga seet tam nga jàngat eh, xadi eh, bi nga xamee ne wax nañ ne Euh, yonent bi digal nañ jël ci moom xam-xam te ñu seet nan la dundee woon ñu jéem a jéem a ko ron roy comme ay jigéen lañu ñu seet ndax moom li ñuy def tey ci jamono gi ndax déppoo woon li mu doon def li mu doon nekkee borom këram ndax ñun noonu lañ nekkee sunu borom kër dañ ko war a jàngat lépp léegi nag fi mu nekk nii li gën a sonal nit ñi tey mooy ñaari yëf te docteur yi wax nañ ci bi sonna te kon ba boobaa borom xam-xam yi war nañ ci wax delluwaat ko ci alquran ñu seet lan la alquran wax ci. mooy li ñuy wax tey cigarette li ñu wax tey maanaam xeesal tey ci suba rek ba mu ko seetaanee bi ñu ki nga xamee ne moo yore tey dermatologie fii ci polo ni ñu éviter ko ci seen TV mu ngi wax danger bi ci ne mu ne leeral bi da wax mën a xeesal leeral bi rek nu muy yàq ci yaram bi kenn xamul nu mu toll te yàq xam ngeen yàlla def ko tere yàqal keneen def ko tere wax mën a yàq yàqal sa bopp yàlla mu ne laa tufsidu inna allaha laa mufsidiina yow nag léegi yàlla mun ne la bul yàq suuf si sax bu ko yàq waxuma ne yow sa bopp te lan moo taxul mu jox jox la cër yi wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li abdun yàlla mu ne bind ma nit ak jinne lu ñu jaamoom mooy wéetal ma léegi nag lan ngay jaamu yàlla du cër yi boo demee cër yi na ngi indi feebar dugal ci cër yi nan ngay mën a jaamoti yàlla dootoo mun a jaamu yàlla kan moo la ko tere yaa tere sa bopp kan nga ko def sa bopp nga ko def ndax nag léegi yow ku wàcce yoon kooku du mu kooku mooy mooykat yàlla mooy ne yàlla ñoom nag bu ñu déggee mooykat yàlla dañu defee ne njaaloo mooy yàlla moy li yàlla tere nga def ko yàlla mu ne bul def li nga def ko mooy nga yàlla te waman yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidina fi abada yàlla mu ne ku mooy yàlla mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam safara moom ngay beel boo dee ci loolu léegi nag fi mu nekk nii ñoom jigéen ñi topp nañu ay pikiir pikiir bi nga xamee ne xamoo ndax ci da ci mucc wala doo ci mucc ndax danga ci jëlee feebar wala doo ci jëlee feebar boo ci dee safara ngay dem danga doon xaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xaroo moom lay lay defar ci biir safara di la ko yokkal méttit gi ba bésu pénc kon nag ki nga xamee ne dafa jël cigarette cigarette bi yàq putam yàq léppam te moo ko tey moo ko jënd ci alalam te alal bi dañ la ko jox ngir nga maana ko maanaam jaamoo ko yàlla cëri dañ la ko jox ngir jaamoo ko yàlla yaw nga jël loolu nga jël maanaam foxe ko sa bopp ba yàq maanaam diine bi eh, yàqal sa bopp mënutoo jaamu yàlla mënutoo jaamu yàlla fi mu nekk nii sa jaamu yàlla googu yàq nga ko te dañ la ko santaane woon nga jaamu sa borom subhanahu wa taala nga jël nga yow yaa dugal foofu feebar boobu yaa ko dugal xamal ne da ngay layoo ak yaram googu danañ la taxawal ëllëg ñu xam ne yàlla joxewul woon ko maanaam pour caaxaan eh, inna allaha la yaxfa alayhi sheyun fi l ard wala fi lsamai huwa la yusawwirukum fi arxaami kayfa yashaa yàlla moom dara umpuwu ko ni ngeen mën a nekkee ak nu ngeen mën a doxalee ba itam moom yàlla moo la formé ci sa biir waajur ni nga nekkee ba génn ci biti bu fekkee loolu doyu la mënoo ci sante sa borom wante yaa ngi jël lu lay feebarloo lu lay euh, tardeloo ci jaamu yàlla lu lay tere maanaam nga nekk nit nga nekk am jàmm nga am ay góom am ay di fajo te dootoo wér te ëllëg loolu danañ leen laaj fan lu tax nga def ko te ba boobaa jigéen ñi war nañ ci bay xel bu baax a baax jël maanaam cigarette yi maanaam ci góor ñi ak jigéen yëpp ñu ngi ci dugg loolu gis nañ ne man gis naa ki a xamee ne fan yi rek gaañu na waaye nag bu muy gaañ bi ñu ko opéré fii la lañ ko opéré docteur bi opéré fekkee ne def na cancer mu ne cigarette bi moo yàq fii bokkut ak nag mu ne fii xol bi yëpp yàqu na mu ne fii la defe woon bëggoon fa dugale raakool bi waa nag seet na ne foofu itam yàqu na waaye nag kes na ko ba opéré ko waa bi dee na ci fan yi te kan moo ko rey mooy rey boppam képp kuy cigarette jël cigarette képp kuy def xeesal bés boo deexee keroog nga motal sa xaru te ku xaru safara ngay dem kon nag nañu bay xel li Laxdari wax rek wala yafalu fiilan xatta yaalama hukma allahi fiihi mu ne nit ki jullit warul def dara ci li nga xamee ne xamul lan la yàlla atte li ci diinam ndax daggan na ci wala daggnu ci moom kon nañu góorgóorlu déglu maanaam borom xam-xam yi góorgóorlu ragal sunu boroom góorgóorlu ñu xam ne maanaam yaram yi waruñ ko yàq dañ ko war a jaamoo sunu boroom ñu waruñ ko won sax beneen góor sa jikkar moo ko war a xool loo koy wonee keneen kon yal nañ yàlla dimbale yàlla teg ñu ci yoonu siraatul mustaqim ñu ngi ñëpp rawatina sunu jigéen bi nekk pari moom Aïda Ka moom ak maanaam euh, euh, Ami Ba ñoom ñu ngi suivre euh, émission bi bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu ak ñeneen ñu fa nekk yëpp kon ñu ngi nuyu ak ñi bi nekk biir Sénégal di ñu suivre yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf imam alaaji yaaro nag jërëjëf alamam alaaji mbay njaay ci li ngeen eh, jox bokk yi jàkkaloo ñun tey ci fàttali gi wa zakir fa inna zikra tanfau al kon li ngeen di fàttali rek ngeen fàttali doomu aadama yi ni ko yàlla waxee ak ni ko santaane yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha naasu wal hijaara kon nag jërë ngeen jëf ci fàttali gi ngeen fàttali loolu kon kàddu l'islam mi ngi ñaanal njiitu réew mi ak ñi koy jàppale di ñaanal njiitu kër gii di RTS ak ñi koy jàppale yëpp nag ak euh, imam ak Ousmane mi yor euh, lii nga xam ne moo di waaru diine yëpp ci télévision bi ak ñi koy jàppale yëpp nag di wax ne alhaji Mamadou Thiam mu nekk ca Arabie Saoudite ak Amadou Faye ak alhaji Ibra Pouy njabootu alaji Ibrahima Sakho waaye njabootu alaji Papa Sarr Thiaw Wakam waaye ki nga xam ne mooy alaji Mamadou Lamine Niang kaddu l'islam di leen ñaanal jàmm kaddu l'islam di ñaanal jàmm ñi nekk nañu ci Arabie Saoudite yëpp nag rawati ñu nekk Espagne ak ñu nekk Italie ci société Amadoré waaye ak ñi nga xam ne ñoo nekk Paris ñu nekk Mauritanie Guinée Conakry ak Mali ak fi nga xam ne moo di Gambia ak Guinée Bissau yëpp kaddu lislaam mu ngi leen di ñaanal eh, jàmm kaddu lislaam di wax ne mi ngi ànd tey ñi nga xam ne ñoo taxawoon yor eh, liggéey bi mu rafet a sell muy Adja Daba Kébé madame si Adja Diar Gaye madam madame Gaye waaye ak ki nga xam ne mooy Moustapha eh, Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Cheikh Ibra Diop waaye Cheikh Tidiane Sène ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Sène waaye ak ki nga xam ne mooy papa Abdoulaye euh, Kane di leen ñaanal jàmm ci seen waxtaan wi nga xam ne ñoo ko tax ngeen mën koo seetaan ni mu rafetee te sell waaye di wax ne Adja Aida Aida Aida Kébé mu Adja Aida si mu nekk ca Sébikotane Kaddu Islam ma ngi koy ñaanal jàmm ak mboolem ñuy ànd ak ñun yëpp nag kon Kaddu Islam ma ngi leen di tàggu ba alxames ci waxtu incha allah mu di saar yéen ci waxtaan yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu